Bienvenue sur Salam Vision. asalaamaaleykum mbokk yi di leen gërëm leen sant jàll que les programmes de Salam Vision. l'Afrique en marche mooy émission bi nga xam ni dañ ko jagleel Afrique fépp africaine yeewoo yaa ngi si bi ci ñoo ko bokk di gërëm toute la diaspora ñuy suivre sur le plan international tey dañu jël euh, sujet bu am solo mooy l'élection présidentielle au Tchad xam nga keroog wax naa sur le Bénin mais tey dañuy intéressé wu indi élection présidentielle au Tchad Tchad kan moo fa nekk président bu ñuy wax euh, Idriss Déby Itno jiite réew mi tey am na plus de fanweeri at ak ñett man loolu bare na euh, élection yi amoon na bii passé dimanche diggante Idriss Déby ak fukki candidat yi xam ne ñoo yowoo si biir opposition euh, réewum Tchad démocratie bonne gouvernance Euh, droit de l'homme dafa gën a dellu di ginnaaw fay ca réewum Tchad xam ngeen ni Ndakaaru fii amoon na seen benn ancien président bu ñuy wax Hissène Habré euh, fi lañ ko ci Ndakaaru teg ko ay daan ngir dundam kooku mooy Hissène Habré jiite woon na Tchad jamono yi jamono yi 1981 82 jëm kaw ki ko daane nag mooy Idrissa bi tey nekk au pouvoir pouvoir boo xam ni dafa nasaxal démocratie existe bi faalewul le peuple tchadien euh, faalewul sax ñu démocratie muy bon gouvernance les droits de l'homme euh, Tchad amul liberté d'expression Tchad amatul justice ma bamtuwaat ko ma ni su mbokk africain yi fan lañ jëm nañu xool bu baax wax naa ko barki dem rek si émission fi l'Afrique en marche Afrique kan lay avancé kan lay jëm kanam ay présidents yoo xam ni def fi trente ans quarante ans ba quarante cinq ans dafa bëri euh, élection yi nag boo moytul bii mooy sixième mandat Idriss Déby moom mi ngi foqati pour jëlaat nguur gi pour am sixième mandat du dëgg du yoon keroog rek am benn opposant boo xam ni euh, dafa waroon nekk candidat dañ ko def mu ñaaw euh, bundu xatal ko takkare yi ñoo wër bundu tëmbal fa ay bom sànni fa ay nag yu ba ba fat yaay bi ko jur ak benn doom ak benn doom ak taawam loolu lu dëgg du yoon àdduna bi yëpp ñu koy ñaawlu pour nag ngir bëgg nguur euh, bëgg a toog di bum yi di jaay loolu sax passé nag monage Idrissa bi tey dem na ban ay ndombal tànkam le un maréchal maréchal bi nañ ko gis en Afrique euh, jamonoy Jean Blaise Bokassa en Centrafrique demoon na ba nekk un maréchal maréchal dafa nekk Euh, kuréel boobu dafa loo xam ni boo saxatee sax jël si la sa kër tëj la président bu romboon sax nga nga nga tisoli sax ñu jël si la ma ban réew lañu nekk en Afrique Afrique kenn lay développé Afrique euh, ban Afrique la ñuy gis ni actuellement ay président yi fi nekk gis ngeen barki dem rek ki nga xam mooy Denis Sassou Nguesso euh, faral nañ ko pour un cinquième mandat 33 ans de pouvoir plus 5 ans muy ñaata doy sur le continent africain Afrique sonn la tey sonn la ndóol baa ngi fii euh, koom-koom bi day gën dellu ginnaaw euh, li ñu naan euh, dundu na askan Afrique ma ne kenn gisatu suñu bopp président yaa ngi def leen neex fàllewu ñu kenn loolu du dëgg du yoon sur le continent africain moo tax tey jël l'élection présidentielle au Tchad Tchad nag amoon na benn président bu ñu wax François Tombalbaye en 1975 euh, dafa amoon nag histoire ak le colonel Kadhafi euh, mu nag la barrière d'Aouzou c'était en 1975 ba 1977 78 Seyni Boom François Tombal Baye euh, François Tombal jamono yooyu am bi Tombal Baye demee si la kii ñëw ñoom Hissène Habré noo kii. Goukou Niwédé il euh, le président Félix Malou nekkoon ay président jamono yooyu ñoom ñu doon xeex jamono yi problème pétrole ak problème mu ethnie au Tchad yàgg na fii diwaanu Afrique Hissène euh, Habré jot na jiite Tchad 1982 1990 jamono yooyu après nag euh, ki nga doon vice président Idriss bi tey mooy jiite Tchad jamono jii war na abale war na joxe pouvoir bi. Tchad bari na ay cadre car dafa soxla démocratie manifestation amul fa euh, ñaxtu amul fa loolu mooy manifestation amul Tchad amul partout sur le continent am na réew yoo xam ni am na ay manifestation mais ñoom seen constitution euh, da koy moo tax Sénégal war nañu gën a góorgóorlu ñu bañ yàq suñu démocratie mu yeneen pays am na démocratie mais dafa des euh, kooku mooy Tchad kooku mooy Idriss Déby euh, di woo suñu mbokku tchadiens yi di woo le continent africain ni ñu gën a góorgóorlu que Afrique ñoo ko bokk Afrique war na indi beneen xar kanam wala indi beneen gis-gis beneen euh, vision mën a suqali Afrique sur le plan économique sur le plan de l'agriculture euh, sur le plan de la santé sociale culture développement mesdames et Euh, notre émission d'aujourd'hui s'est intéressée sur l'élection présidentielle au Tchad. Les Tchadiens sont allés aux urnes le dimanche dernier pour élire un nouveau président. Idriss Déby Etno est au pouvoir depuis 34 ans. Imaginez-vous, trop c'est trop, pour un continent bouleversé et miné par une géopolitique euh, très très très obscure. C'est fini la dictature sur le continent africain. Quand même, il est temps de changer l'Afrique. Il est temps également que les Africains euh, puissent prendre en main leur destin. Euh, trop euh, de dictature, trop d'autoritarisme sur le continent. Les Tchadiens ont trop souffert. Le Tchad est un très grand pays, un pays d'intellectuels, un pays euh, qui n'a plus de démocratie. Il n'y a plus de liberté d'expression. Les journalistes ne sont pas libres. Les, les droits de l'homme sont bafoués et ne sont jamais respectés dans ce pays à cause d'un président qui est là euh, au service de ses propres ailes et au service de ses, propres, de ses propres camarades. il est temps que le, le président Déby puisse changer de manteau et de fusil d'épaule. Euh, C'est l'heure de tirer la sonnette d'alarme sur le continent. Les Africains en ont besoin d'une bouffée d'oxygène. Les Africains veulent insérer un climat de paix et de stabilité. Cela nous permettra d'aller vers une Afrique unifiée, une Afrique solidaire et prospère. Euh, il y a eu des paysans qui ont euh, au Tchad. Je prends le paysan Tombalbaï, qui a été assassiné sauvagement à cause de la bande d'Aouzou euh, qui avait lié entre lui et le colonel Kadhafi à l'époque. Euh, également Goukouni Vélé qui a dirigé le gouvernement national de transition, le GUNT à l'époque. Il a été invincé par Hissène Abré qui est à Dakar et qui a été jugé à perpétuité euh, selon euh, les Tchadiens, la justice tchadienne. Il a commis beaucoup d'erreurs et beaucoup de crimes au Tchad. Après, euh, ce président qui est là, incarcéré au, Sénégal à perpétuité, il y a eu début. 34 ans de pouvoir, trop c'est trop sur le continent. Euh, cette élection euh, doit se dérouler dans d'excellentes conditions, dans la transparence et dans l'égalité. Mais ce que nous constatons sur ce continent, des chefs d'État qui s'accaparent du pouvoir 40 ans jusqu'à 45 ans, des chefs d'État continuent à diriger un peuple meurtri. Euh, tout récemment, Denis Sassou Nguesso a été réélu pour un cinquième mandat à la tête du pays. Imaginez-vous qui a dirigé le, euh, le, disons, Congo pendant 34 ans. Hélas, chers Tchadiens et Tchadiennes, euh, à nous battre, à instaurer la paix et la démocratie un peu partout sur le continent africain. Pour terminer, nous lançons un à l'UIA, l'Union africaine euh, doit jouer le jeu. L'Union africaine doit aller vers ces États africains, les sensibiliser, les conscientiser pour que nous puissions ensemble mettre à genoux ces dictatures qui fragilisent ce continent africain. Je vous en remercie, mesdames et messieurs. C'était l'Afrique en marche qui s'est intéressée aujourd'hui sur l'élection présidentielle au Tchad. Il y a très bien